wajalilaayi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara فنجني واخفض له أوسارا وكل من عابني أو مالا إلا يفرس خدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربي فلتكفني أسى جميع العالمين والتقي مساء يا رب العالمين وجل بنائي بنا أوافيا يجرني إلى خيور سافيا وجل بنائي بناء علمي وامل بسنة وعلمي واجعل بنائي بناء الاعتداء والتفعني كيد كل سيتداء auzu billahi bismillah alhamdulillah salawatullahi wa salaamu ala wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummati wajxal kalaami rasida wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu suñu kilifa yi nga xam ne ñoo teewe jataay bi di jiital ci nuyoo bi sëriñ alxaaji sëriñ tàkko mbakke mi nga xam ne mooy kilifa ak jataay bi di nuyu sëriñ Habibullahi Mbakke mi nga xam ne ni moo jiite kuréel gi ñuy wax Touba ca kanam di nuyu sëriñ Abdou Lahad Mbakke mu sëriñ Abibu di ñaan su nuyoo boobu ñu tegal ñu ko ci alxalifatul xam bi taifatil muridiya Cheikh Mahmadul Muntaxa yàlla na ko suñu boroom sàmm te guddal aw fanam te wéral ko di jégalu lu baax ci kàddu yi nga xam ne ñoo ngi koy yëkkati ci kanam suñu kilifa xam naa nag kàddu yi dañ ciy jiital ak cant ci mboolem kilifa yi nga xam ne ni ñoo nekk suñu kanam ci yoon wi rawatina ñi nga xam ne nag dañoo jàpp ci liggéey bii ñi nga xam ne moo ñu dajale fii ñu di ko wax social te social nag bu ko waxee rek mooy al infaq fi sabilillah mooy dimbalante te yàlla rek a tax kon ci kaw loolu lañuy sukkandiku di nuyu di sant bu baax sëriñ Abou sëriñ Ahmadul maxtar Mbakke mu Cheikh Mamadul Moustapha moom mi nga xam ne ci barabam bii ci barab bii ñuy defee waxtaan wi mooy kilifa ak jataay bi di sant bu baax kilifa yi nga xam ne ni ñoo jàpp ci bis bii ba mën a taaru di sant bu baax mboolem kilifa yi diine yi nekk ci dëkk bi yëpp rawatina jabootu maam maaram gi ba liggéey bi commencé ba léegi ñoo ko ànd ak ñoom ak mboolem taalibe sëñ Tuubaa yi waaye rawatina Cheikh si Cheikh si nag bu ñu ko tuddee ñu ngi ciy beral ak cant waa kër Cheikh Ibrahima Fall ak waa kër sëñ Massamba Diop Samb ñoom wax dëgg yàlla fu ñu fu ñu gëstoo rek gis leen kon ñu ngi leen di sant bu baax di sant mbooleem Cheikh si nekk ci dëkk bi yëpp di sant di sant waa jaspooraa bi yëpp bàyyiwuñu muy Afrique Europe États-Unis d'Amérique Asie ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax mboolem soxna ya fa nekk ak góor yàlla fa ya fa nekk yëpp ñu ngi leen di sant bu baax gis nañ seen taxawaay ci Touba ci kanam rawatina ci bis bi. di nuyu mbooleem soxna yi nga xam ne ñoo teewee jataay bi buñ ci tuddee soxna Bintu Mbàkke mi nga xam ne moo jiite soxna yi dana mën a yóbbaale mbooleem soxna yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci bitim réew di nuyu bu baax nuyoo bépp ñu ngi koy teg ci. sëriñ Abdou Fatah Gueye mii nga xam ne mooy président association bi ñuy wax Touba ca kanam ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu mboolem membre yi topp ci moom yëpp ak mboolem commission yi nga xam ne nii ñoom la ñu àndal ba bis bi tegu ci yoon. kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di wax rek ne Touba ca kanam comme ni ko ñëpp xamee sëriñ Touba bi muy sanc dëkk bi mbooleem li mu ci dëkk bi ñaan ñaan na ko boromam bu boromam am may na ko bayit bi nga xam ne wax na ci ne sunu borom moo wommat jëmale ma ci suuf sii nga xam ne moom moo ko tànnal boppam moo ma ko tànnal ma tabax fi ñaari kër yoo xam ne nii jaamu yàlla ci imaan islaam ihsaan moo tax ma sanc ñaari dëkk yooyu tuddee ko Daaru Salaam ak tuubaa ngir barkeelu ci seen ñaari tur yooyu daal di ñaan sunu borom ci ngëneelam ak ci daraje yonente bi sallallahu alayhi wa mu def dëkk bii di ak Daaru Salaam mu doon dëkku jàmm bu ànd ak xéewal loolu boo demee ci doxaawul kabir da nga ko ci fekk mu wax ne allahuma xutta simaami ila ardi allati ixtartaha wa banaytu fiiha daara salaami wa tuuba wa banaytu fiihima daarayni li wa sammaytuhuma daara salaami wa tuuba tabarukan bihima bi fadlika wa bijaahi wasilati ilayka sallallahu saali matayni xaali matayni te ñaanu Sëriñ Tuuba li ci Sëriñ Tuuba li mu wuuteeg awliyaaw yi dafa waxoon ku ñuy wax suñu Demba Kebe ne ko man li ma wute wuuteeg wàlliyu yi mooy ñoom dañuy ñaan suñu borom may leen man nag suñu borom day teg ci sama loxo ba noppi ne ma ñaanal li ma la may muy madali alxusna wa madali sayat man li yaquula haaka xabla madiyat kon mbooleem lu sëriñ bi ñaan ci dëkk bi rek lu suñu borom def la ba noppi comme ni ko Cheikh Mamadou mu al Karim mi nekk moom jataay bii doon waxee li nga xam ne sëñ wax na ko te mu gis ko lim gisagul la gën a gëm ci lim gis fuuf kon nag loolu yaqin yooyu lañ ci am waaye dañoo bëgg rek bokk ci rek ñaan gi nga xam ne moom la sëriñ bi ñaan ne suñu borom na nga faj aajo ñi nga xam ne dañoo sax ci di ma liggéeyal te nga may leen li ñuy sàpp loolu rek moo waral ñu taxawal tubaa ci kanam gi muy waq di xawaay jël lësina daamoo fii xidmati wa hablahum maaraamoo Touba ci kanam ni ko nit ñëpp xamee sëñ soxna bu Ridwaan mi nga xam ne moom a jiitu wax na li ci ëpp daanaka kon du jar ñu koy baamtuwaat dañuy jëm ci commission bi nga xam ne moo fa dajalee nit ñi rek muy commission bi nga xam ne moom la ñuy wax social te bu ñu waxee social mooy al infaq fi sabilillah mooy dimbalante ci yoonu yàlla waaye dafa mel ne murit moom bu ko ndigal dabee rek ndigal lañ ko jox moom la war a tudde loola keroog bi ñu demee ci sëñ Muntaxa te ma leeral ko social bi ak ni muy doxee dafa ma wax ne ma kon mooy gën a yeesal jaayante kon social Touba ci kanam bi gën a yeesal jaayante la luñ ci teg soo di ko ci teg ndax tur la sëñ bi joxe mu doon commission boo xam ne nii Touba ca kanam ni mu tëddee dafa am ay ay banqaas banqaas yi mooy commission yi nga xam ne nii moo ci nekk commission bu nekk ak la mu war a def commission bii nga xam ne mooy social nag ñoom seen métier mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ndax ku nekk xam na ne dëkk bi bi sëriñ bi wootee ñëpp dañoo fexe seeni kër ñëw fekk sëriñ Touba. bi ko bi ñu ko fekk see nag am na ci ñoo xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw kon nag dana baax ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe sëriñ ñu jéem a fexe ba loolu sëriñ bi ñaanoon fompal leen seen ronqañ ñu jéem ko def li ma waxoon ne wal tubasir biir yataama daawa man ansihum wa abaahum kulahin commission bi ci Touba ci kanam nag ni muy doxee mooy liggéey bokk na ci jumaa ji nga xam ne nii mooy jumaay cheikh euh, jumaay jumaa ju mag ji te waa daayiratul muxaddamatul xidma sëriñ bi dénk leen ko ñu fay def liggéey liggéey bu am solo euh, comme ni Touba ci kanam di doxee rek gépp kuréel goo xam ne fekkoon na ko fi dañuy fexe ba leen sëñ bi liggéeyal ñu fexe ba gunge leen ca ngir yéene ja sëñ bi bëgg ci ñoom ak yéene jën bëggal sëñ bi mën a jàppandi moo tax waxtu weer wu dee ñu am loo xam ne dañ koy barkeeloo di ko jëmale ci jumaa ji xam nañ ne sax la war ca ñun mënuñu ko waaye dañuy feeñal yéene rek ndax bëgguk sëriñ Tuubaa moom dara jiitu ci alxuraan ndax moo daan wax ne bustaani kitaabullaahi samay tool mooy alxuraan kon bokk na ci liggéeyu commission sociale muy loo xam ne ni dañ koy barkeeloo ci weer wu nekk nga xam ne dafa sax jëm ci jumaa ji bokk na ci loo xam ne tamit dañ koy def muy at ci waxtu wu nekk muy social bii nga xam ne moo ñu dajale fii ñu koy def ci weeru koor jot ren jii mooy ñetteelu ñetteelu xew wi lu tax ñu taamu ci koor itam du asaar ndax koor mooy weer wi gën ci weer yi waaye buñ fàtte tamit ne alquranul karim ci ci koor gi la wàcc muy shahru ramadan allasi unzila fihi alquran ba tey guddi gi gën ci guddi yëpp ci weer wi ci weer wi la nekk muy laylatul xadar inna anzalnaahu fii laylatul xadar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ay gore ab jaam boo xam ne koor ñëw na ba dem te jégaluñ ko ay bàkkaaram kon nag def lu baax fu nekk la baaxe waaye rawatina weeru koor waaye fu nekk lu baaxee waaye rawatina dëkk bi nga xam ne mooy dëkkub Serigne Touba ñu baaxoo at jot ni social bi tëddee mooy dañuy yebal ay nit ñoo xam ne ñooy dem ca sancaan yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi gëstu fa ba gis ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo ñu bind leen jox leen ay bon bu ko defee bis bi jotee ñeen joxoon bon ya rek bu ñëwee ku nekk dañuy tudd sa tur nga joxe boo man la joxoon rek ñu jox la ko nga xam ne kon yii ñu fi dajale yëpp ñi ko war a jël si demoon nañ ci ñoom ba xam ñan lañ ba bind seeni tur ba jox leen ay kayit ñu téye jox leen ko rek moo des daaw nag ñoo ngi defoon cent 338 famille lañ defoon cent 338 famille ren jii ñu am yéene def cent ak lu ko topp lañ defoon daaw tamit ci liñ leen doon jox ren jii dañ koo ful luñ leen doon jox benn ren jii dañ ko dañ koo def ñaar ndax yaakaar naa daaw ñi fi daje woon ñëpp ñu ngi leen doon jox saaku 25 kilos ak suukar ak tàndarma ak ñaar téeméer yoo xam ne danga koy fay ngir mu yóbbul la ko fa nga jëm ren jii ñu ne nañ yokk suñu loxo ndax sëñ Tuubaa mbiram ni muy doxee rek tayam ju nekk day gàccaal ëllëgam di ma waxoon ne wa am si yun siini bi yow boobu xat te tayam ji gàccaal na démbam ji moo tax ñu yokk suñu loxo def ko ñeent ñeenti téeméeri njaboot ak lu topp ku ci nekk fas nañ la yéenee jox cinquante kilos ceeb ak juróomi kilo suukar ak keesu tàndarma ak yére boo xam ne danga ko mën a sol ci kori gi incha allah ak ñeenti téeméer yoo xam ne da nga mën a ëpp ab taxi fii léegi teg ko ci mu yóbbul la ko sa kër te doo ci am benn jafe-jafe kon mooy li fas yéenee ren jii ku nekk xam na ne suñu borom dafa sàkk ay nit waaye am na ñum teg am natt ñi nga xam ne ni suñu borom tegu leen am natt du seenu njàmbaar waaye ñu ngi ko teg tamit du seenu yaafuus ba tax na ñoom tamit ñi ngi ci jataay bi jël nañ ci ñoom ab lim boo xam ne fas nañ leen jox ca ndimbal yee waaye fas nañ yéene tamit yëkkati lu tollook fukki sees roulant ak juróom jox leen ko fas nañ yéene tamit yëkkati lu tollook fukki beeke ak juróom jox leen ko incha allah am na fu ñuy wax daarul atfal yataama muy orphelinat Maam Jaara bi am na ay ndimbal yoo xam ne nii yëkkati nañ ko lu tolloog trois cent mille daaw deux cent cinquante mille lañ leen joxoon ñu jënde ko lu mel ne li ñuy suturloo ak lu mel ne ay meew ak yi nga xam ne xale dana ko yittewoo euh, ren ji yokk nañ ko ba trois cent mille incha allah rabbi jébbal nañ ko ñu ngi ko war a jox fas nañ yéene itam euh, sëñ Abdou Fatah gi mi doon na wax ne ma xale yi danañ yittewoo lu mel ne ruy sëñ bi joxe woon na fi lu tolloog ñaar fukki saaku yu dugub bu soobee yàlla danañ jéem a seet nan lañ leen ci séddee daaray alxuraan yi nekk ci dëkk bi tamit ci biir Touba ci kanam am na commission bu ñu tuddee scientifique et culturelle at mu jot danañ xool li mu ay daara yoo xam ne dañ koy jaar ci sëñ Mamoor mu Cheikh Mamadou Fadal daaw jëloon nañ ci lu tolloog fanweeri daara ak ñaar seet la nga xam ne moom lañ woo ñu defal leen ko ren jii am nañ yéene defal lu ëpp loolu seen biir si génn dama nappi waaye social tamit bëggut a des daara yi ginnaaw danañ fas yéene jël ci commission bi ni wax scientifique et culturel nombre ay sëriñ daara jox leen ci loo xam ne danañ ko yittewoo ci koor gi li tax nag ñu taamu ci mu doon ab dund mu doon ab dund sëñ Tuubaa dafa waxoon ne xeeti jaamu yàlla yëpp bi ko ci gënal mooy joxe xeeti joxe yëpp bi ko ci gënal mooy joxe aw ñam te loolu boo jàngee ci alxuraan masal li si nii fi xoon ambaalum fi ba ci aaya ba ku nekk xam na ne tiyaaba ji ci nekk jàkka li muy baax baax yëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku tabaxal sunu borom jenn jàkka sunu borom dana tabaxal pale ca aljana waaye yonent bi tamit wax na sëñ Tuubaa nettali ko ne nga leel benn jullit ba mu bu xiif nga leel ko ba mu suur moo gën fuuf nga tabax junni jumaa wa luqmatun tasuddu tasuddu badnal jaa'ihi afdalu min binaa'i alfi jaamihi kon dëgg la infrastructure baax na lool waaye fexe ba nit ñi tamit wér ndax ku wér doo mën a jaamu yàlla ku xéewluwut tamit doo mën a taxaw bay naaf la kon moo tax lii ñuy def ñu di ko jëmale ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ba tax tamit ñu am ci ab leeral bu ñuy def muy ñaat téeméer yi nga xam ne nii moom la ñuy laaj murit bu nekk loolu liñ ñu ko fas yéene defaree mooy dëkk bi lu jëm ci ay poste de santé courant ndox ak lu mel ni assainissement ak yu ak yu ci tege waaye lii nga xam ne ñoo ngi koy yëkkati di ko jox nit ñi ñu di ko xewloo ak di leen jàppale ci seen wér-gu-yaram loolu moom weer wu nekk lay doon lu sax lay doon loo xam ne ni waxtu wu jot dañuy wax murit bu nekk rek mu génnee jaayante yëkkati lam yor ñu ñu ñu dajale ko mooy lim bii nga xam ne moom lañ fa dajale lépp benn dërëm bu ci jógee ci keesu Touba ci kanam gii nga xam ne moom la ñuy laaj murit yi 1000 francs amut comme ni ko suñu Abibulahi Mbàkke di waxee rek 1000 francs yi Touba ci kanam moom yu dugg ci keesu Touba ci kanam mi ngi mel ne néew bu dugg tuubaa génn fi du ci yombaat te loolu su ma ko waxee waa communication moom danañ gëm li may wax kon noonu lay demee kon li li li ci li ci am lépp dañ koy dañ koy jaayante kon ñu ngi ci boo bokk taalibe yëpp social nag du yem fii ndax ku nekk xam na ne dëkk bi am na ñoo xam ne dañuy wéradi te seen loxo jotul seen ginnaaw am nañ ci ay xalaat yu bari yoo xam ne fës nañ ñoo dem ba jëmmal lu ñuy wax mutuelle de santé boo xam ne ku faj ku wéradi danga mën a faju ci lu yomb incha allah ngir ñaanal ñu ci suñu borom jàppandal ko am na tamit lu ñu bëgg a taxawal loo xam ne nii day commission scientifique et la ñu ko dénk xam naa danañ ci kilifa yi danañ ci dox lu lu ñuy wax ne lu mel ne baytu sakkaat mooy bunt loo xam ne dañ koy sàkk képp kuy joxe asaka ci dëkk bi da nga ko fay dugal ngir asaka objectif bi nga xam ne moo tax islaam teg ko mooy kun dimbale ren bu ëllëgee nga mënal sa bopp bay bokk ci ñuy joxe asaka moo tax ñu bëgg a wut lu ñuy wax baytu sakaat kilifa yi ñu ngi ciy dox kon ñu ngi cooy fàttaliwaale suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi ci dëkk bi te xam ne alal jin yor suñu borom daleen leen koo dénk waaye mayu leen ko comme ni ko olof di wax rek yàlla day dénkaane waaye mayewut te loolu aaya bi nga xam ne suñu borom mi nga mi ngi wax ne waan fexoo fii jaxalakum fii fiihi da koy firndeel ak aaya bi nga xam ne suñu borom day wax ne na ngeen joxe ci alal yàlla ji nga xam ne da leen koo jox wa aatuhum min malillahi allasi aataakum kon tabe lu am solo la sëñ Moustapha mu sëriñ waxoon na benn bis ne ma foo fekk ñaar ñoo xam ne kenn ka dafa tabe kenn ka doon am nay buñ doon xeex sax ka tabee gañe kon tabee lu am solo la te yor sab xaalis liggéey ko ba mu leew nga denc ko nit ñu bari dañoo jàpp ne mooy mooy ak njàmbaar waaye loolu du ak njàmbaarte ak njàmbaarte mooy nga liggéey sa alal ba mu leew la nga defaat ko ci yoonu yàlla jaarale ko Cheikh Ahmadul Xadim loolu mooy ak te ñi nga xam ne duñ joxe seen alal suñu borom tëkku na leen tëkku yu mett yoo xam ne yowmal xiyaam la leen ciy fekk dana doy waar yor wala si ne yekk ne zone sahaba wala fidata wala yunfiquuna fi sabilillah fa basiruhum bi azabin alim yowma yuxma alayha fi naari jahannam fa tukkuwaa biha jibaahum wa junubuhum wa suhurum hasa maa kanastum li anfusikum fa suuqu maa kuntum takkani soon kon denc alal amul solo ndax alal lu mu bari bari ñett rek moo ci am li nga xam ne moom la lay waajale ak li nga xam ne moom nga fi bàyyi sa njaboot donn ko waaye sa bàmmeel la la fay jariñ mooy sa jëf man xamila saalihan fa li nafsi wa an laysa lil insaani illa ma shaha wa anna sahyu sawfa yura loo jëful ci sa bàmmeel du la fa fekk kon suñu alal yi nga xam dañoo jaayante woon ak si ahmadul xadim wax ko ne ko jox nañ la suñu bopp adduna ak alaxira kon ñun adduna ak alaxira lañ jox suñu bopp te saxaaba yi nga xam ne nii dañoo wax seen dañoo jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba suñu borom di wax ne inna allaha astara min al muminina anfasu anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul janna ñoom ñaar lañ leen laaj muy seen alal ak seen i bakkan ñun murid yi nag kenn lañu kenn laajee ko fi bakkan alal rek lañ fi laaj kon nag alal ji moomuñu ko waaye sëñ bi sëñ bi sëñ bi rek moo ñu ko dénk kon nag sëñ bi soxlaa te soxlawul lépp soxla ci as yaakaar naa ku gore war nga koo mën a yëkkati defal ko sëñ bi ci lim bëgg kon nag waa social ñu ngi woo bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp te suñu borom man leeloon man loolu leen ñu yëkkati seen alal yi di ko jaarale ci commission sociale bi ngir mu àgg ci askan wi nga xam ne ñoo ngi ci dëkk bi te seen loxo jotu suñu ginnaaw ndax Tuubaa ci kanam moom benn bàkk rek la am muy laaj lu ñu am te di ko def suñu xam kuy suivre Tuubaa ci kanam dana xam ne lépp lu ñuy laaj nit ñi lu leer nañ ñi sa dërëm mën nga koo topp moom man wax la fa dugg lii ñuy joxe fii yëpp dañ koy bind bu noppee dañuy publier ne ku nekk joxe na nangam ban ca génnee nangam nangam a ca des kon ñu ngi ciy woo bokki taalibe yëpp moom la Seydina Aboubacar waxoon ku doon jaamu yonente bi yonente bi moom génn àdduna ci saayir waaye jaamu yàlla nag yàlla day dund di wéy kon ko koo xam ne nii social 18 Ramadan moo taxoon nga doon jëf 18 Ramadan mu tey la yem waaye koo xam ne da nga doon jëf ngir jëm Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa mi ngi fi te du fi jóg bu mukk kon lii ñu def nii danañ ko defaat ci kore gi incha allahu rabbi danañ ko defaat ci tabaski yi mbale bi danañ ko mbale mi ñuy waajal màggal gi danañ ko defaat incha allah li jëm ci jumaa ja nag moom weer wu nekk lay doon bokki taalibe yëpp ku ci jaayante loo ci mën a jaayante rek dañ koy teg ci loxob ñi nga xam ne ñoo jàngal sëñ Tuubaa foofu alxuraan kon ñi ngi sant bu baax nag ñi nga xam ne ñoo jàngal sëriñ bi alxuraan ci jumaa ji ñëw nañ fi jàng fi ay kaamil ñu ngi leen di sant bu baax te gërëm di wax ne sëñ jaw xidma mii dafa ma doon yëgal ne waa muxaddamatul xidma dugal nañ seen loxo ci ci social bi kon ñu ngi leen sant bu baax di gërëm di leen wax ne ñun ñi am nañ jéene yi am nañ yéene yi ndogu yi ñuy def ci jumaa ji ñu dugal ci suñu loxo incha allah ndax Touba Kanam moom comme ni ma ko waxee woon rek ñëwut ci dëkk bi ngir xëccoo ab cër wala muy xëccoo wala muy concurrence ak genn kuréel waaye li yéene mooy képp ku sëñ bi dénk dara rek mu fexe ba la sëñ bi dénk nga réussir ca loolu moo waral boo demee ci Safinatul Amaan Touba Ca Kanam dugal na ca loxoom boo demee Maa ur Rahmati Touba Ca Kanam dugal na ca loxoom boo ñëwee ci muxaddamatul may gii tamit ñoo ngi leen gunge ci liggéey bi waaye di ñaan rek liñ leen di li ñuy def ci ñoom akus néew lañ leen yéene ko ëpp fuuf kon ñu xam ne eh, li li Cheikh Mamadou Fadal daan wax rek ñun ñëpp ay bokk lañ rawatina ñun ñi nga xam ne nii ñooy liggéeyal sëñ bi ci dëkk bi te daf doon ay kuréel te ay bokk nag dañuy wax ne ku nekk mën ngaa gën say bokk waaye mënoo leen a génn ku nekk mën ngaa gën say bokk waaye mënoo leen ku nekk mën ngaa gën say bokk waaye mënoo leen a génn ku nekk mën ngaa ëppale say bokk waaye mënu leen a ëpp ku nekk mën ngaa raw say bokk fuuf waaye boo leen négut ba ñëw ba ñëw nga ànd ak ñoom saw doxin rafet kon nag ñu ngi fa yéenee ànd ak yéen rek ci di diisoog yéen ci mbir yëpp anam bu ngeen gis ne jàpp jàpp ne ne jàpp ngeen ne mën nañ ko bu ngeen ko ñu ko waxee rek incha allah danañ ci def suñu kéemtalaay kàttan ab ànd nag ñaara ko yàq muy gàntu lees man ak tege lees mënut kon loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. am na tamit commission sociale bi bokk na ci li muy yëngu mooy li ma doon wax le léegi am na ci nit ñi ñoo xam ne nii seen wér-gu-yaram day xaw a sooxe te duñ am fu ñu ko saafara woo euh, yàlla dogal bu ñëwee ci commission sociale ni muy doxee ngir ñi ñi nga xam ne nii nekk nañ fii te wér day bette bu bu bu ku ci dal nga bañ a jàpp ne man maa doon wax rek nga di ma woo waaye ni muy demee laa bëgg a wax dafa am ci seesu Touba ci kanam ku ñuy wax secrétaire permanent koo xam ne toujours ma nga fa sëñ Mourtala Seck bu fekkee ne da ngaa wéradi te sa wéradi googa nga lott ja te mënoo koo faj te amoo fenn foo ko faje kon su ma nee amoo fenn foo ko faje foo boo amee foo ko faje kon da ngay jéem dem ca ñooña te ñi nga xam ne amuñu fu ñu fajoo nag nga xajal leen foofu bu ñëwee eh, da ngay koy wax li nga xam ne moo la dal bu ko defee ñun du ñuy médecin waaye dañ lay yóbbu ci médecin mu consulter la xam lan moo la dal ak lan moo lay faj bu fekkee ne doon na maladie boo xam ne mënees na koo faj ñun ñu jël la asar fajal la lépp incha allah bu fekkee dafa nekk maladie chronique nga xam ne du wér ñun ñu feeñal ci suñu yéene te ñaanal la suñu borom dimbali la saafaral la sa tawat jooju ba tax na ren jii rek am na ab lim boo xam ne nii xëy na chiffre bi dana dana dana bari ci ñoo xam ne jaar nañ ci Touba ci kanam mu saafaral ni seen i jàngoro moom ba tey may fàttali ne ñu mbooleem ñu ñuy faj ak mbooleem ndimbal yi ñuy joxe yépp jugewut ci 1000 francs yi nga xam ne moom la ñuy laaj weer wu dee ci murid waaye ab jaayante lay doon boo xam ne ku nekk day yëkkati sa ñaq def ci ba tey tamit dëkk bi ku nekk xam na ne ni ñuy jëfandikoo euh, day jur ay jàngoro ba tax ñu bari ñu ngi am feebaru jalis ci jàppandalu waa diaspora bi waa itali am nañ onze machine jalis yoo xam ne nii agsi na xam naa balaa yàgg danañ ko gis ak ñetti ambulance yoo xam ne nii incha allah ginnaaw bu ñu joxee ambulance yi ci ci sapeur pompier ak bi nekk Lansar am na yeneen ambulance yoo xam ne ni dëkk bi dong moo ko tax a jug ba tey bokk na ci li ñuy def mooy tabaski gi man mën na maa am ab yére waaye keneen mën naa dend ak man te du am ab yére commission sociale daaw dajale woon nañ lu mat 5000 yére yoo xam ne dañ machines yi maa maa ngi damaa jum ci lim bi 11 laa waxoon waaye machine yi 14 machine de dialyse la loolu tamit dama ci soññiwaale ma defaale benn sensibiliser suñu bokk soxna yi bokk na ci li nga xam ne ni mooy fagaru moo gën faju ndax jalis boobu machine yu jalis yooyu ñu indi bu ñu sañoon kenn du wér wéradi ba di ko utiliser waaye wéradi gi fii ci Touba moom li ko waral lenn rek la mooy ni ñuy jëfandikoo mbir yi benn ni soxna yi di toggee ak bion yooyu ñu ciy def lu ci bëri mooy indi jalis yi ak garabi wolof yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo te duñ ko wóorlu ak médicament yi nga xam ne nii mi ngi ñu ngi koy jaay fii te am na ci yoo xam ne nii xamuñu dëgg-dëgg la muy amee kii moo tax nit ku nekk rek bala ngaa jëfandikoo dara war ngaa wóorlu ba xam ndax dana def effet secondaire wala déet kon loolu moom ab sensibilisation rek la ñuy bu ñu doon def ci askan wi la ñu gën a xam ne euh, loolu lépp daal commission sociale mi ngi ciy mi ngi ciy yëngu di sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di sañ soññuwaat nag euh, suñu bokki taalibe yi nekk ci dëkk bi yëpp rawatina sama morom yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu xam ne lii ñuy def lépp defal seen maam lañ koy defaral te bu fekkoon du sëñ Tuubaa sax ñu ay nit fekk si la ca dëkk ba nga xam ne sa maam moo ko ji ñu ne la kaay ñu cotiser ñu defar la sa këru maam gi yaakaar naa war nga caa sawar asamaan nag ba muy sëñ Tuubaa mi nga xam ne nii moo ñu yoral suñu adduna ak alaxira te li ñu suñ bi defal dañoo jomb ndax li ñu doon def léegi muy julli amut benn lu ci yàlla di mën a jariñoo bàyyi ba waxtu bi jot nga tooyal sa cër yi di sëgg ka siggi amul benn intérêt njaar yàlla waaye lim lim li li xikma bi rek mooy nga am reconnaissance ci nangu ne suñu borom mii mooy sa borom kon tamit sëñ Tuubaa nekk gi ñu nekk ci dëkk bi bokkuñu moom dëgg la euh, lu baax la lu daraja la ju ju kawe waaye liy ndam mooy nga am reconnaissance ci sëñ bi mooy euh, murit bu nekk li war a posé wu mooy boo nee li ma sëriñ bi defal yépp war ngaa xalaat tamit yow lan nga defal sëriñ bi te sëriñ bi moom mënuñu koo defal dara ndax ba muy nekk ci géej ga wax na ci fulkul mason ne sanlafali alfan bi xayri kas bi wasa yaziduni fasaaka hasbi kon kooku moom mënoo ko defal dara moom waaye li nga ko mën a defal mooy defal ko ko ci eh, ñii nga xam ne dañoo bàyyi seeni kër bàyyi seeni maam ñëw fekk si ko ci dëkkam bii te sëñ Tuubaa moom li muy utiliser baatu dëkk bariwul heure buy wax ci Tuubaa sama kër lay wax o maskani o maskani waccan ilaahi maskani Tuubaa abat mislas miha bi yaay xayri man habat kon ñu gën cee jàpp te xam ne commission bii ubbil ubbil na ay buntam ñëpp képp koo xam ne nii ak bàyyi defal yàlla nga wala da ngay def ngir sëñ bi daal ñu ubbil nañ la suñu bunt di ñaan nag ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci jàppoon ci zahir ak batin yàlla nañ dugg ci al aaya boobu nga xam ne moom la suñu woroom di wax ne allazina yunfiquuna amwaalahum bi leyli wa nahaari sirran wa bi falahum ajruhum xaw rabbihim wala xawfun alayhim wala hum noon di ñaan sëriñ si ñaanal ñu bu baax baax ñu sax ci liggéeyal ak sëñ bi te bañ koo génn ba faw sëñ bi féete ñu kaw féete ñu suuf féete ñu càmmoñ féete ñu dayjoor wakun amaami wakun xalfi wakun wasati وفي يميني شمالي يا رجاء يكوني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجل الله مسكني طبابا مصر اسمها بجاي خير ما نبات وجل الله مسكني طبابا مثل اسمها بجاي خير من نبات وسليا علي عبد الصلاة وآله وصحبه سوي الصلات وكل من قدمني أوسارا فنجني وخله أوسارا وكل من آبني أو مالا إلا يفرس خدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربي يا وتكفني أسى جميع العالمين والتقي مسايا رب العالمين وجل بنائي بناء وافيا يجرني إلى خيور سافيا وجل بنائي بناء علمي وامل بسنة وعلمي واجعل بنائي بناء الاعتدال wal takfi anni kayda kulli si